marhaban yoon ak yoonal ak wàllum politique ñoo gën a fës ci xëtu yéenekaay libération ñëwaat ci atte fukk ak ñeenti doomi aadama yu ñu boom fale ci Casamance ci àllu boo fa bayot ba ne ñu njiital rébellia César Atoute Badiate mi ñu daal di atte ci mbir mi te teewut te ñu daal di gàll ciw loosam mandat d'arrêt international daal dinañu njort ci moom ne moo dugal ay yoxam ci boomu ko fukk ak ñeenti doomi aadama yooyu ñu faatoon ci àllu boo fa bayot ba fale ci Casamance ci janvier 2018 fukk ak benn ci ay doomi aadama yu njort ne ñoo laale ci mbir moomee te ñu daal di leen atte bàyyi nañ leen ci kanamu chambre criminelle bu Ziguinchor bokk na ci li ñu leen di toppee di wàllum assassinat maanaam faat bakken tentative d'assassinat association malfaiteur bokk ci kuréel bu yëngu ci wàllum ñaawteef libération nañu chambre criminelle bi bu toppee bëgg-bëgg avocat général bi René Bassène ak yeneen fukki doomi aadama yi ñu tudd ci boobule dossier mu bokk ci Abdou ci biir kaso gi ci seen giiri dund ana mooy nangu ñu libéré ay criminel laaj bu nu mel nag yéen kat tribune moo ko daal di ci xëtam gu njëkk ginnaaw bu président Macky Sall jéggale di maanaam ñeent ci waaye teg loxo ci fetu indépendance gi yéene kaay bi ne su fekkente ne am na yenn ci ay prisonniers yu mérito ñu daal di leen jëggal du teene itam ci biir liste ba ñu daal di fay gis ay nit ña nga xamante ne waruñu leen jëggal ndax danger bi ñu doon ci biir askan wi ci jojule jamono Témoin Quotidien mu ngi xam le ni président Macky Sall ci opération de charme la tegoo fu mu toll nii ci diggante mag ndawi réew mi yéene kaay laas dëggal xibaar bi nañu président Macky Sall kay fu mu toll nii mu nga indiwaat ay jubbanti ci politique am jëmale ko ci ndaw ñi Le Soleil ñëwaat ci dogal bu tukkee ci conseil des ministres ci ay jubbanti yu ñu nar a indi ci Médina ak ci plateau yéeni kaay bi ne président Macky Sall daal dinay sàkku ci gouvernement bi ngir mu développer lu ñuy duppee ab dialogue territorial constructif ak ville bu Ndakaaru ak ay maire commune d'arrondissement bu Dakar Plateau moom président Macky bu ñu sukkandikoo ci yéeni kaay Le Soleil daal dinay ci gouvernement bi ngir mu jublu ci liggéey ba nu gën a gaawee ci nu ñu ndar keppe ab plan de modernisation ngir yeesalaat arrondissement bu Dakar Plateau ak centre ville bu Ndakaaru bés bi le ci jafe ñu nemmeeku ci ñàkkum gaz gi ci Ndakaaru di xamle ni joriñ sàkku ci distributeurs yi ngir ñu jël seen ay matuwaay yu war su ko defee ñu mën a indi saafara nu mu gën a gaawee ci séddalam gaz bi ci réew mi yéene kaay leen fu daal di koy feelu ne ñàkkum gaz bi ñuy dund ci ndakaaru kenn rek moo ci responsable moo di société wu total mi nga xamante ne dafa daal di gedd di maanaam bandone ab lim bu takku jëmale ko ci ndellu gaz ya ci ñu muy xeccool te ñu jàpp ne ñooñee mënuñu ko wuutu Sud Quotidien ne bu ñu sukkandiko ci kilifay réew mi gaz ñàkkut ci Sénégal jafe-jafe bi kay lenn la moo di ab guerre de di maanaam defante mi dox ci diggante ay société yuy yëngu ci boobu lay domaine jàngeen jëf